tiit na kay amul feebar bu rey doo doo ko bañ tiit parce que xam nga comme yow mi yow mi nekk di wax ak ma xaw man da sax yor nga ko <laughs> comprendre nga te déjà te bés bu nekk maa ngi génn comme kii ma xam nga maa ngi da nga ma fekk di wax ak kii depuis si suba gisantewuñu ay jour jour bien ay sante gisantewuñu maa ngi koy nuyoo xaw man da moom fu muy dem tey am na ku ko voilà comprendre nga moo tax ragal bi kay ragal dama ragal na na sama xel bi toogul moom du ci njaboot du ci man lépp maa ngi ciy sooraale sama xel bi neexul moom wax dëgg yàlla xalaatuñu ko yaakaarewuñu ci woon loolu ci ah, Sénégal quoi waaw parce que man du fii la joge ci kaw la jóge comme loolu bu ñëwee fii dafa jar tiit waaw. gën am maana ku nekk na xool lu muy lekk ñu xool nu ñuy raxase ñu xool ku muy àndal puisque ma feebar bi mun na dal ku nekk. mun na ma daal léegi nga ne sama copain nga bàyyi ma dem ci moom rek non amu sans da ngay ñu si des yaa ngi comprendre moo ci gën a am solo quoi waaw man loolu laa ci gis. Euh, bël na ci fekk loxol boroom na nit ñi set daal lu gën a set lu ñu gën a set mu gën a mu gën a wàññeeku ba pare tamit ñu ngi ñaan tamit suñu autorités yi ñu taxaw ci parce que lii du caaxaan dëgg la lu am la feebar bi lu am la sénégalais bi dafay foowee bakkanam day foowee bakkanu tamit nit ñun. sénégalais bi tant que ku ko jege deewul rek du gëm ne lii lu am la mais feebar bi lu am la te luy réel la. ah sama xaar est-ce que man je me disais que est-ce que du ay dóor rek parce que je ne pense ne aussi xam nga Sénégal moom dafa bëri njublang quoi sama xalaat sama xalaat ah je ne pense pas que ne réellement affaire baa ngi waaye c'est les affaires de politiciens bon. mais ça va day sóob day sóob rek. Ah day dama ko xam ne parce que instant yi xam nga instant yi gars yi politique bi instant yi fi bëgg a tenir nit ñi si biir kër yi est-ce que compris dañu bëgg a téye nit si biir kër yi ñu bañ a génne si marché yooyu c'est pour ça loolu la rek. non je ne pense pas. xel dal na parce que yàlla moo naa xëy tukkil àddina bi su boobaa ki lay gën a méttee su boobaa doo ci mën dara comme que yàlla mu ñu koy teg ñu xool ay pexe yu ñu koy jéem ma fajee yàlla nañ ko yàlla tegil yàlla rek mooy mooy ko mën a teggil te yàlla mën na ko yàlla na ko def. kon yow daal tiitoo tiituma dara. Ah waaw xamul na dinaa yeew comme que naa bay dox damay sant yàlla lu ma yàlla teg ma xam ne yàlla ma ko teg. voilà pour yi na puisque ma dañuy jël client ñuy nooy ci ñun ñuy sekkat ñuy def lu ne yaa ngi donc ñuy joxante loxo tamit aussi xaalis bi ñuy jàppante loolu yëpp nit ki dafa war a sooraale quoi waaw mun naa le wax ne na tegal fii bu ma la naree wecce man tam ma jël fii ma teg ko fii nga jël man de sama xalaat noonu la waaw mais na pour en cas man sama bopp bu ma naree sakkat. damay teg fii sama loxo ma génn ci biti ma sàkkat ma dugalaat sama loxo na waaw mais wax dëgg yàlla moom neexuñu neexul ci de réew mi waaw sama xel dalu ci de maa ngi na jël client mais sama xel dalu ci <laughs> nag ci fànn nag café gi laay yëngu damay damay wax rek comme ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu tamit ak ñi ñuy dem ci loolu ñu ñu jéem a fagaru bu baax daal mus pour mucc ci li koy joxe loolu mooy mooy mooy mooy kii bi solution bi comme nun koy waxee waaye di wax rek ne comme nii nun koy déggee nii yàlla na fa yem rek comme lu ne xew na fi aussi nii rek leen koy déggee mais du mujj fenn nan nan jàll comme lépp rek bañ a bañ a doon loo xam ne daal dina indi benn loraange ci biir réew mi waaw di di di wax gars yi aussi comme set bi nga wax rek ñu jéem ci góorgóorlu bu baax a baax waaw ñu fexé ba dugg sa kër na nga raxasu na nga raxasu la nuyu ko xamné na nga utiliser masque il faut ñu deux différence amna bi nga euh, euh, protéger il faut ñu am des différences entre ñaar yoy rek ñuy tak en tout cas nañ ci def attention té ñu wax ko xalé yi tamit ñu gën gën ko xam ñu raxas suñu loxo fu ñuy toll suñu duggé ak suñu génné yépp yépp yépp feebar bo xamantene la exactement sax xamu ñu lan moko indi en plus tamit nako nit ñi baña daw tamit quoi ndax fever bi personne à l'abri ñëpp mën na dal ku nekk waaw na fever bu walé la mais na nit ñi gëna set rek. waaw waaw moy set rek bo du génn bo duggé nga raxasu booy génn nga raxasu.

ñu yeesee ba xam naka ban politique la ñu mën a def pour ñu tëj frontières yi de façon que ñu mën a gën a armé wu. mu jënd ay masque mu jënd ko ku mën di set di raxas waaw di raxas ay karo di defar nettoyer kër gi di ko nettoyer waat deux deux fois par jour mu koy def.